sëriñ Basiiru wanta ñaŋ jàmbaar ja mooy woote waat di di yeesalaat jumaa ja yeesal jumaa yi daaru yokkub taaram na ñépp wuy si balla aysak maaram bu kenn xeeb benn dërëm la baayaar bu kenn naw ci naalu yàlla milliard na ñépp wuy si yéen murit yi daaro nu xayalaat jumaa ji lépp taa jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéen ñu ngi bàyyi xel ci Istikhama TV télé bi jël léppam teg ci ak njub tey jii ci bis bi ñu fàttalikoo Cheikh Ibrahima Faty borom Daaru Muxti mi nga xam ne kenn du ko fàtte ngir li mu def ci xol yi def ko ci xel yi waaye liggéey ko ci diine lislaam ba ñëpp dégg ko xam ko gis ko euh, mu nekkoon kenn ci wetu Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasuul suñu borom teel leen a boole lool wax naa la ni ndab li bi ko sëriñ bi taajee maam Thierno moo jëkk a sukk te ba léegi jógut kon kooku ku ñëw ci Thierno ko ci sëriñ Tuubaa nga ko fekk. ñu ngi fii nag ci kër sëñ Modou Mahfous Mbacke ibnu sëñ Cheikh Awa Balla Mbacke borom yaa xafaaru sunob waaye ñu mën a tudd itam sëñ Modou Mahfous Mbacke moom soxna may Mounatou Mbacke borom laylatul xadar fekk si ko nag ci bésu Cheikh Ibrahima Fati bi di borom daaru mu fonk ko lool jox ko yitte lool nii nu baaxoo defee bis rek noonu la ko tërale te mooy gàttandoo ko alxuraan gunge ko alxuraan ànd ak moom ci alxuraan tax si moom bi sunnati yaquduna lil jannati bi ñu ñëwee nag dafa jël kàddoom jox ko Baye Cheikh mi doomam di kenn ci njaboot gi te xam-xamam mate ko sëkk dal gi ak tee gi yar bi ak taalibe gi waaye damay jox kàddu gi El mbay Mbaye Dieng. Ah, asalaamaaleykum yéen mbokki julli yi yéen mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu ci kàddoog suñu kilifa gii toog di sëriñ Mouhamadou Mahfous Mbacké moom soxna May moom Xaadimu Rasuul sëriñ Mouhamadou Mahfous Mbacké moom sëriñ saa bal moom borom Daaru Musi mu toog fii tey ci Daaru Moote ne fi ak njaboot gi di taalibe yëpp ak bokk yi ñuy màggal màggal maam Thierno Ibrahima Faty maanaam sëriñ bi di santaane taalibe yëpp ñoo sax ci jàmm yàlla ak nangoo liggéey te it di jàppalante ngir yàlla te itam lépp loo xamante bi yàlla koy tere boobu taalibe jege ci benn waxtu ndax taalibe jëfe ndigal moo koy may li mu bëgg bu ko defee am la mu bëgg mi ngi leen di leen lu xam ne dinañ ko waajal ndax weer koor yi ci. aouzu billahi minash shaytaani rajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi waxda walsalaatu walsalaamu ala man laa nabiya baada sayidina wa maulana muhammadin wa ala wa sahbihi wa xadimihi wa man tabiahum bi ixsaanin ila yawmi ddin amma baadu assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit bokki taalibe yi ginnaaw bu ñu suñu boroom julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama sant cheikhul xadim suñu jàmbaar ja ñu ngi leen di nuyu ci kanam suñu waajur wu tedd wi nga xam ni mooy as cheikh Mouhamadul Mahfouz mi nga xam ni dañuy ñaan suñu boroom an yaxfadahu wa yaraahu wa yansurahu xatta yutimma ma nawaa fi xidmati l islaami wal muslimin wa fi xidmati jaddihi as cheikh al xadimi radiallahu taala anhu nga xam ni mën nañoo wax ni dafa bokk ci ñi nga xam ni sabab Sëriñ Tuubaa lañu ndaxte sëriñ tubaab ku ne xam ne dundam gépp da koo jeexal ci jaamu yàlla waaye da koo jeexal ci joxe nafsam ak nafisam ci i'laa'u kalimatillah waaye àndoon ko ak rakkam ju tedd ja ak mbooloo mu bari ñu mel ni moom muy Cheikh Ibrahima mi nga xam ni kenn ku nekk xam na seere yi sëriñ bi def ci moom ndax seere mu ngi yam ci ni wax na ni maam Ibrahima faatiday lam yu faariq nii fii sigarihi wala fii kibarihi musta tàggoog man ci ak ndawam waaye mës ta tàggoog man ci ak magam kon sëriñ bee ko yar jàngal ko def ci moom li mu def ci moom waaye mu jël ak bokkam gi mu bokk ak sëriñ bi jaay ko jëndee ko taalibe ndax xam ne sëriñ bi moom ni ñuy jariñoo ci moom ak mooy ak taalibe rek kon moom daa jël ak euh, bokkam jaay ko sëriñ bi jëndee ko taalibe moo tax sëriñ bi defal ko xarqul aada waaye sëriñ Mouhamadou Mahfouz mi nga xam ne suñu waajur la doon suñu wëllëre waajur doon doon mbokkam doon mbokkam ñëpp xamoon seen diggante oustaz Khalifaal sagub sëriñ Tuubaa la bokk ndax sëriñ bi dafa ñaan léppam sëriñ bi moo ñaan ni zurriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabiyal Mustafa tajtahidu kon mën nañ ni Cheikh Mouhamadul Mahfouz ci ñooñu la bokk ndax suñu borom mooy wax ci alxuraan ni allazina amanu wattabaatuhum zurriyatum bi imaanin alxaqna bihim zurriyatihim wa ma alatnahum min amalihim min shay gaa yi nga xam dañ fay nekkoon nekk ci lu baax nekk ci li leen war seen digg seen borom bu ñu fi jógee day ña seenu njaboot ku jaar ci seeni tànk teg fañ tegoon seen tànk la nekkoon ci ñoom dinañ ko toxal ci ñoom kon mën nañu Cheikh Mamadou Mahfouz mi li nekkoon Cheikhul Khadim lépp nekk ci maam Thierno Ibrahima Faty suñ borom toxal na ko ci moom nekkoon ci waajuram soxna may Maymunatu ndax ku dégg Cheikh Mahamadou Mahfouz ci diine nga ko dégg ci bëgg alquraanul karim nga ko nga ko bëgg dégg waaye ci bëgg diine ak fonk julli nga ko dégg lu mbooloo mi bari bari ak lu jataay bi euh, xumb seet lu ngeen ni saa bu waxtu julli jigee day jóg waaj ci biir ñëw waaye day wax ni mbooloo mépp nañ leen wax ni waxtu jot na te loolu nag la ñuy doyee kilifa diine kon bis bi nga xam ne ci la ñuy fàttaliku diggante suñu maam ja maam Cerno Ibrahima Faati ak magam ju baaxam ja waaye sëriñam ba cheikh cheikhu Ahmadul Xadim fii ci Daarul Muxti ci kër suñu maam Cheikh Awa Balla Mbacke mu bokk ko magam ji nga xam ni ñoom ñaar kenn lañu muy maam Cerno Mbacke ñu koy ñaaral mu yàgg ci kanamam lool te wér ba li ñu bëggal liggéeyal seen maam yëpp maam Cerno Birahim ak seen maam Cheikhul ak seen waajur yu baax yi soxna May Muundatu suñu borom defal leen ko ñu li seen liggéey ni ñu ko bëggee kon mbokki taalibe yaa ngi nii ci suba ba léegi ñu ñëw di siyaal sëñ Mouhamadou sëñ Mouhamadou di jëmm joo xam ni ku am kóllëre la waaye ku gore la waaye ku fonk doomu aadama la ndax boo déggee turam ak personnalité soo ëgsee ci moom di nga fekk jëmmam noo xam ne di nga jàpp ni du kii nga doon dégg la loolu nag mooy jikkoy nit ku yiw waaye mooy jikkoy jullit waaye mooy jikkoy taalibeb Serigne Touba kon ñu ngi koy ñaar may ko fan gudd ak wér mu yàgg a fekke màggal gi taalibe yàgg fe ñu yàgg ko bokk ak moom bu baax taawam bi nga xam ne mooy Baye Cheikh nga xam ne moom it macha allah da koo jàngal yar ko waaye nag ku ni sëñ Mouhamadou Moutada Mbacke mooy sa maam kon jàpp naa ne yow xam-xam loo ca am rek doyul kon Baye Cheikh ñu ngi koy baax di ko ziar di ko sant baax di ko gërëm ci doon gëm doon taalibe waajuram nga xam ne moom it jàppul waajur gi waaye taalibe gi la jàpp foo ko fekk ci euh, ndigul Cheikh Mahmoud lay dox waaye ñu nuyu baax sëriñ Xaadim Mbacke mi nga xam tamit moo nekk suñu wet mooy muy jëmm ju baax joo xam ne foofu Baye Cheikh teg tànkam rek la teg tànkam ak mboolem njaboot yi nga xam ne ñoo topp ci ñoom bu ñu ñaar rek Euh, dañuy mën a yóbbaale ñi yëpp mooy muy suñu mbokk ci wàllu deret sax ndax dañoo bokk ca xaali Amar Fall mu jëmm joo xam moom it ku amul taalibe la ko topp waajuram la waaye ku déggoog magam ji la di Baye Cheikh kon ñu leen di ñaan ñoom ñëpp ci barkeb sëriñ bi yàlla yàggal leen ak seen waajur suñu waajur wi di Cheikh Maam Mahfouz mu yàggal leen a jiite ñu yàgg ànd ak moom liggéey bi di ñaan suñu borom da déwén yàlla ñëpp màggal si kenn bañ a manqué te lu fi waaye fas rek allahu taala ko am ndax def na ko fi kon ñu jox kàddu gi suñu mbokk suñu xarit sëñ Baye Cheikh Mbacke mu motil li ci des wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërë ngeen jëf. bisimilah rahmaani rahiim alhamdulilahi rabil aalamiin wasalaatu wasalaam ala ashrafil mursalin sayidina mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xayri xadimihi wa sallama tasliman noo ngi tàmbali suñuy kàddu ci sant suñ borom mi ñu xéewale ñu fekke woon bis bi daaw fekkewaat ko ren di ñaan fekk ko ay déwén yu bare bare eh, ci jàmm di yëkkati kàddu nuyoo ak kàddu ziyaar di ko jëmale bépp jullit rawatina bépp taalibe eh, di jiital ci nuyoo gi Cheikh Mouhamadul Mountakha di ñaan suñ borom yàggal ko fi te wéral ko yàggal fi itam sëriñ Bachirou Anta Niang mi fi nekkal borom daaru ak eh, képp koo xam ne nekk ci lo toolub lislaam ñu fi sunu waajur wi ñi ñuy jël kàddu ci ndigalam yal na ko suñ borom sàmm ba lim yéene liggéey lislaam lépp mu def ko sàmm bépp jullit di ndokkeel jullit ñëpp nag ci bis bi eh, rawatina taalibe yi eh, ni ma ko waxee rek weer wi dafa bari ay ngëneel dafa bari ay ngëneel lool ndax alayhi salaatu wasalaam nee na ci weer wi eh, ci leen ni yéegale jëfi eh, jullit bi maanaam liñ def ci lu baax ci at mi yëpp ci weer wi leen koy yéegale moo tax yonent bi ginnaaw weeru koor weer wi li daan ëpp lu muy woor ndax nee dafa bëgg bu ñuy yéegal ay ay yiwam ak jëfam fekk ko ci koor kon weeru weeru màgg la euh, waaye ci bis bi nga xamee ne mooy nisfu Shaaban euh, ci la ñu suñu borom joxe ndigal ñuy jublu Kaaba ga bu ñuy julli ndax lu ko jiitu baytul maqdis lañ daan julli lañ daan lañ daan jëm bu ñuy julli waaye ci bis bi ci ci ci la suñu borom joxe ndigal yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu ñuy julli. ñu jublu kaaba ga xad nara taqalluba wajhika fi sama fa la nuwalliyannaka qiblatan tardaha fa walli wajhaka shatr al masjid al haram waaye itam ci bis bi ci la borom daarul moxti njëkk a dajeeg Serigne Touba ginnaaw bi mu jugee ci géej gi muy daje bu am solo boo xamee ne eh, lu mat di ko la eh, lu mat di eh, feetu la waa ndax euh, Serigne Touba dafa amoon ab mission bu ko taxoon a jóg mu yeesal euh, diine islaam euh, loolu nag am ñu ne woon loolu du fi amee muy tubaab yi looloo taxoon ñu génne ko réewam taqale ko njabootam ak ñi ko topp lu mat juróom-ñetti at bi muy dem nag ngir. mission boobu mën a continuer mën a wéy ci la tànne bara droit am euh, rakkam Cheikh Ibrahima Fati ngir mu wutu ko ci mission boobu suñ borom yi tam defal ko ci ndam ndax li mu ko dénkoon lépp euh, bi mu ñëwee euh, dafa mat sëkk ñi ma ñu ñi ñu tolloon ci jàng jàngal na leen ñu tolloon ci jàng alxuraan bi sëñ bi ñëwee fekk na ñu ñu mokkal wala ñu bind kaamil ñu tolloon ci jàng xam-xam jàngal na leen xam-xam waaye ñu tolloon ci tarbiya itam tarbiya na leen ba seexal fi ay ay bare bare bare bare ñu bare bare na leen ba seexal leen moo tax sëñ bi nee na ndaje moomu sëñ bi dafa bëgg ba ne ko. naam bu fekkoon eh, yaa dem bàyyi ma fi ndax li nga def nii dinaa ko man kon foofu la ak eh, xol bu sedd foofu la yem ngërëm foofu la yem waaye nag la ko mayoon mooy eh, sëñ Tuba daf ko tëggoon ba mu mel na mu bëgg ku ko mel ndax léppam sëñ Tuba moo ko def ci moom moo ko waajal ndax ba mu gënee àdduna rek la leen Mamour Anta Sali boole woon maanaam relation bu ak kóllëre gu mel noonu mu mosuñu ko gis ci taarix ni ko sëriñ Moussa Sall di waxe maanaam relation bu yàggee noonu ko xam ne ba nga juddoo rek la la sa waajur booleeg euh, sama sëriñ Touba ne kii de bu dee góor a mission bi bi la tax a jóg moo la ci jàppale te noonu noonu lañ ko àndee. musta tàqale koog moom ci magam ak ci ndawam waaye itam musta juyee ak moom waaw musta juyee ak moom kon mooy jëmmal ab taalibe murid saadex mën na wax ne maam Thierno mooy ki ko jëmmal dëgg-dëgg ki ko gën a jëmmal kon dana euh, looloo taxoon mu bàyyi ko njaboot gi bàyyi ko taalibe yi ngir ni bëgg ab taalibe mel ko maam Thierno def ko ci ñoom. waaw loolu moo waral nag ñu daje tey jii ngir fàttaliku euh, bis boobu waaye itam nafaraat dundug maam Thierno ngir man cee jël ay bind euh, comme que moom la ñu royloo laaj ñi ñi xam ni mu doon doxe ay ak ay taxawaayam ci diine waaye ak ay jikkoom yu rafet waaye bokk na ci li nga xamee ne mën nañ ko tëg euh, tënkee ni meloon mooy am njub waaw nee na bu ñu daan joxee missaal ci ku jub ci maam Thierno leen ko daan joxe misaal te ak jub nag mooy lépp ak jub mooy lépp mooy bu bu ñu waxee ak njub gëm yàlla day dugg ci biir wéetal ko bañ ko bokkaale kenn xam ne lu dul moom rek mbindeef la waaye bu ñu waxee ak njub itam. li lislaam digle lépp da ngay wàccoog moom lim lim santaane ci ay jaamu yàlla yëpp da koy def sa kéemte laay kàttan kenn du la gis ci lu muy tere maam tere nag waxuma la euh, lislaam sentaane santaane ruxas yi daaw ko jëfandikoo maanaam li nga xamee ne lislaam def ko ay yolam yolam li nan ay yolam yolam maam Thierno daaw ko def daawut julli te jàpput nee na ñaari yoon la ma sa tiim te ba mu amee ndox daf koo fay sëñ Moussa Ka wax na ko mooy benn bi la ñuy tudd ma sàmba bi ci des mooy at mi muy san eh, sanc koso te lislaam may na ko mu tiim mm-hmm. waaye ba mu amee ndox daf ko daf ko daf koo baamu kon noonu la nekkoon royukaay ci jaamu yàlla waaye noonu la nekkoon royukaay ci jikko yu rafet maam Thierno ku woyofoon la ku mënoon a jaxasoog nit ñi la daawut tëju neenan bu mosaan génn ci biti fa lay nekk ban julli gee te loolu mooy at tarbiya bil xudwa maanaam nit nit ñi jikko day wàlle maanaam koo jaxasoo rek da jël jikkoom moo tax koo bëggut a jël jikkoom rek bul ànd ak moom bul jaxasoo moom maam Thierno nag da daan jaxasoo ak daan tarbiya ñooñu ñuy jël ci jikkoom di leen wàll jikkoom kon daal mën nañu wax ne ni ko Cheikh Mamadou Fadil eh, melal la rek moom kenn mënut a melal lu ko ëpp waaw nee na la woon xamaydil xisaali saabitil jeeshi ummatin na daa fi xaalay fii xaalatay xaxti eh, wal bast nee na ku rafetoon jikko la waaye ku jàmbaare woon daawut daawut ragal daawut tiit amutoon ku muy ragal ndax bu fekkee yàlla dong nga ragal lépp lay ragal waaye boo ragalul yàlla dangay ragal lépp waaye ko tabe la woon ci jamono ju nekk nag jamono ju ju neex ak jamono ju naqari waaye itam umma la woon umma mooy koo xamee ne jikko ju rafet eh, yépp moo daje ci moom kon eh, yal nañ ko yàlla fayal te suñ borom itam def lañu tawféex ba ñu roy ci moom ndax moom lañu suñ Tuubaa royloo eh, moo tax ñu war ñu war koy fàttaliku war a fàttaliku ay ay jaar-jaaram. Euh, di ñaan suñ borom yàggal fi Cheikh Mouhamadul Mountakha euh, ba naal yëpp mu àggale ko yàggal fi Cheikh Mouhamadul Mahfouz itam ak képp koo xam ne da nekk ci toolu lislaam di ñaan ñi fekkee bis ay déwén yu bare bare bare te suñ borom nangu jaamu yàlla yëpp te jotu ci borom Daarul Muxti euh, wasalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf Alhaji Mbaye Dieng jërëjëf Oustaz Fall lii la sëriñ bi tànne woon ci ay kàddu matale nga ko sëkk. yàlla na sama borom yàlla matale seen kóllëre ci barkeb lislaam waaye Baye Cheikh mii itam li ñu doon séntu ci moom gis nañu ko mooy li ñu waxoon ci njëlbeen rek ci dal gi ak tey gi yar bi ak taalibe gi waaye xam-xam bi dolli ko ci bu baax a baax ndax nii mu ñu indile ci borom daaru junj na ci ay ponk yoo xam ne ñun ñëpp war nañ cee roy bu dee ragal yàlla gi war nañ koo roy bu dee xam-xam bi war nañ cee roy bu dee jaamu yàlla gi war nañ cee roy waaye bu dee njàmbaar gi nga xam ne fii jamono tool dafa soxla kuy liggéey te borom daaru léppam da ko doon fàggu amu fit lool bëggoon seexul xadim lool sëriñ Modou Mahfouss Mbacké ñu ngi yeesalaat sunu cofeel ci yow bu baax te di la ziyaara tey ñaan sama borom yàlla guddal saw fante wéral la ndax yow Mbacké taalib yëpp la sopp li ko waral nag mooy sa pasteef ak nekk ci li nga war a nekk nekk fi nga war a nekk li la sa waajur bàyyi woon lépp yaa ngi ci bu dee soxna May la mu bëggoon yaa ngi ca bu dee sëriñ Cheikh Balla la mu bëggoon yaa ngi ci Mbàkke kon yàlla na sag dund yàgg ci barkeem lislaam yàggal fi boolem jaboot gi mbokki mu nekkoon seen bokkum taalibe Mor Talla Kane Ndongal Touba ci seen télévision Istikhama TV wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëfati Serigne Touba Serigne ja mooy woote waat di yeesalaat jumaa wanta ñan jàmbaar ja mooy woote waat di yeesalaat jumaa ja yeesal jumaa yi daaru yokkub taaram na ñépp wuy si balla ay maaram bu kenn xeeb benn dërëm la baayaar bu kenn naw ci naa yàlla miliyaar na ñépp wuy si yéen murit yi nu xayalaat jumaa ji lépp taaru nu xayalaat jumaa ji lépp taaru képp ku def dërëm ci néegu bi yàlla yawmal kenn du la jëkk jàll man sa la si yuxridu jooja laaya manees na ko jox Cheikh Basiru raaya man sa la si yuxridu jooja laaya manees na ko jox Cheikh Basiru raaya ñëwal nu yar la si nañu fi xoonaaw maam Cerno Faati ak tabam saxoon na jaayante baa ngi waaju jiitu jiitu ku des gannaaw na muñ te jéema des gannaaw bootu xalifa baa nga daaroo teg na xeer wa sëñ Basiiru Anta Ñaŋ di yee salaat ja doy na xar waaw yeesal na mbootu xulafaa ya eh? wuutu na cerno gaa yi mbootu sëñ Basiiru Anta Ñaŋ lamboona wilaaya ak inaayaw sëriñ basiiru anta raw gaaya sëriñ basiiru anta ñang jàng ak julleek liggéey la mas di sàlloo doxiinu maam cerno la mas di dalloo basiiru anta ñang jàng ak julleek léggéey la mas di salloo doxiinu maam Cerno la mas di dalloo yal na ko yàlla sàmm may ko yàgg sëñ Basiiru Anta Ñaŋ yal na ko yàlla sàmm may ko yàgg dolli wéram balum finaal mu wàgg yal na ko yàlla sàmmo may ko yàgg dolli wéram balum fi naan mu wàgg aji fa baa nga daaru teg na xeer waa ki yee salaat jumaa ja doy na xar waa Bassirou Anta Ñaŋ xalifa baa daaru teg xeer waa di yeegal haj jumaa ja daaru waaw xeer waa di yeegal haj jumaa ja daaru teg xeer waa di yeegal sëriñ Basiiru wante yeen jàmbaar ja mooy woote waat di yeesalaat jumaa ja yeesal jumaa yi daaru yokkub taaram na ñépp si balla ay maaram bu kenn xeeb benn dërëm la baayaar bu kenn naw naalu yàlla milliard na ñépp wuy fi yéen murit daaro nu xayalaat jumaa ji taaru képp ku def dërëm ci néegub yàlla yowmal xiyaam kenn du la jëkk jàll man sàlla si yuxridu jooja laaya manees na ko jox Cheikh Basiru raaya man sàlla